Ndiaye Alioune Mar bisu man maa la ko wax man seen ambulance incha allahu rabi ndax la gën aw la noo woteel noo tey aw la noo woteel aw la noo woteel noo tey aw la noo woteel aw la noo woteel noo tey aw la noo woteel aw la noo woteel noo tey aw la noo woteel aw te noo tey aw la noo woteel aw la noo woteel noo tey aw la noo woteel te yow la wax si àll bi mais dama koy wax samay dëkkandoo dégg ko Alioune Mar kuy seet gor kuy seet nit ku baax kuy seet kuy jaamu yàlla kuy seet koo xamante ne kii dafa topp askan wi di leen dimbali guddi ak bëccëg boo gisee Alioune Mar war nga taxaw. parce que euh, boo leen gisee ma wax loolu euh, ñun ñëpp ku si nekk rek am na lu yàlla def ci yow ñun ñëpp am na ko am na ku nekk lu yàlla def ci yow man dafa am lu yàlla def ci man ku ko reconnaître nag yaa ma moom mais ku ko ku ko reconnaître faalewu ma Maguette Ndoye gagné national de basket du Sénégal Maguette gagné la coupe du Sénégal plusieurs fois Magendoy. gagné la coupe Saint-Michel plusieurs fois Magendoy. n'est que le roi du basket du Sénégal Magendoy. n'est que le meilleur joueur d'Afrique Magendoy. n'est que le meilleur marqueur d'Afrique Magendoy. gagné gagné la euh, coupe d'Afrique des nations Magendoy. gagné la coupe d'Afrique des clubs champions euh, Yalla def après l'eau de ma carrière ma France ma carrière je suis en France je suis en brillant je suis def Sénégal je suis en brillant Afrique parce que je jouer dans le très très haut niveau voire le très très haut niveau jouer Champions League jouer lu nekk je jouer en France Je suis le meilleur champion de France le vice champion de France mais suis suis venu au Sénégal suis venu si dëkk bi am 63 sélections au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Ni ay autorité ken reconnaissance par rapport à ma personne parce que Noire Mar dafa créer une académie de basket académie de basket bi euh, commune de Rufisque Ouest Mon président conseil d'administration, bi à tout un honneur mon defal reconnaître fi euh, dinaa la defal loo xam ne kenn mësuloo le defal loolu man Maguette Ndoye man maa la ko tu seras protégé jusqu'à la dernière vie de ta vie et ça je m'en sors euh, ma di la wax aussi euh, ba ma defee créer académie bi j'ai appelé la fédération française de basketball ne ko ne leen man dañ ma vraiment dénk benn académie de basket lii laa ci bëgg ak lii ak lii ci matériel deful 15 jours fédération française de basket envoyé ma li may envoyé ba nekk ci Tëngéej kuy jouer basket ci Tëngéej wala kuy def sport ci Tëngéej am nga ci loolu occasion boobu moom moo moo ma ko may. ma jóge fa aussi euh, ma am des amis yu nekk aux États-Unis ma expliquer leen ki ma àndal ma jël sama téléphone. oo leen jox leen maire ñu wax ak maire ñu préparé ma ñaari conteneur de quarante billets benn bi équipement la def benn bi matériel médical la def dañuy bàyyi ba yi passé bu yi passé wax naa ko maar sama service au niveau national et international dinaa ko jël jox ko Alioune Mar pour que ñu ànd defar tëggee euh, na yoo xam yàlla nga tëye ko mu yàgg ma mënoon ko bu yàgg mais dama gisul woon ku ma ko jaral pour ma defal xam moom loolu Alioune Mar jaral na ma ko pour ma def. way sama ndey waya yooyu man Alioune Mar wëruma Alioune Mar Alioune Mar wëruma man maa woon Alioune Mar bu fekk ko fa mu nekk ma ne ko grand man yow lay àndal parce que lii tax may ànd ak yow coono bi nga xam ne da nga coono si dëkk bi te ma xaw a méngoog yow lu may dox si dëkk bi moo tax yow lay àndal loolu moo tax ma ànd ak Mar sans condition man kenn mënu ma jox lu ma am lu pare dama lekk ba suur naan ba man bokkal lépp nag ak ñi ma ko war a bokkal fii si dëkk li may wax nii Amadou Ndiaye mii man na ma témoigner li ma distribué sama xaalisu bopp ma moom ko ëppal na cinq cent millions te maa ko moom donc loolu su ma ko defee fii si biir Tëngéej waa Tëngéej waruma woon sax laaj pour ñu jox ma dama waroon toog ñu ne ma Maguette Ndoye kaay ñu jox la ak ki nga àndal loolu moo waroon am monsieur le aussi vraiment mooy attirer sa attention euh, si quartier bi nga xam ne fi laa dëkk dama jaboot yalla xam dama damaa jagoon xale yi jàppuñu ci dara à chaque fois dañuy ñëw sama kër di ma interpeller euh, ci seen condition de vie wala ci seen euh, comment dirais-je li ñu bëgg pour seen adina mën a améliorer c'est-à-dire essayer d'avoir des emplois je sais que c'est difficile ça je le sais je le reconnais mais damay ñaan yàlla

waxuñu kenn lu bon saagunu kenn xasunu kenn waaye nag sañ nañ ne li ñu bëgg buñ ko séenee mën nañ dem yootu ko jël ko indi ko teg suñuy loxo te xam naa ne fi ñu toll nii terme terme tey jii bu ñu wote woon léegi nii balaa minuit Alioune Mar ñu jël ko yóbbu ko mairie bi. Parce que je suis convaincu et persuadé que Euh, la liste de Gamsabok est majoritaire, là, très largement dans cette ville de l'office. Parce que vous faites est ligne aussi à l'humain. Partout dans cette ville, ce que confirmé, le je pense qu'il n'y aura pas photo. Et Inch'Allah, il n'y aura pas photo. di sant bu baax sama rakk sama xarit mu di màgget Ndoye Maguette Sénégal Tëngéej lu la defal am na lu des ndax dafa nekk une fierté locale une fierté nationale une fierté internationale maa ngi lay sant bu baax di la gërëm parce que moom moo toog mu ne ma yow lay àndal ma ne ko nag daggit boo gis daggitam lay seet dama baax dangaa baax kon mën nañu wax maa ngi lay sant bu baax yaag sa soxna Sile parce que aussi sa kër ñëw naa fi ñëwaat naa fi donc xam naa sa soxna li nga def fii tey ba nga koy def sax teyuloo ko ndax sa soxna dafa baax ci yow mais comme ñun ñëpp aussi suñu soxna dafa baax ci ñun nan da nga ayee rek tey bi fi pas ñun ñu bi tubaab mais lu bëgg bëgg bëgg mais bu quatre heures jotee ñu y a départ parce que fii ay bukki kese moo fi amoon fi Jóob dëkkee ñu ne daal comprendre dafa euh, donc tali bii nga xam ne ñëpp ñoo ko tuddee tali Diopouki ñun suñu commune jël na dina ko def officiellement tuddee ko tali Mamadou Diop di Diopouki maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm également la président du conseil de quartier moom it yàlla bu yàlla mooy jël ay star rek góor ko ci Rufisque Ouest parce que ku tekk ci Sénégal rek. ko xamné yaangi participer ci développement Sénégal sportif économique culturel yaangi fi fii man am naa yaakaar ne yeneen yi dañuy xalat rek defe naa dañuy gënt rek mais ku gis li taxaw fi tay ci ay conseillers ay investis ñu jege bor bi nga xalat ne yow war nga mëna gagner dama yaakar da ngay gënt yëf nak ku mu neex mari yëf ku mu neex gënt nak mais dinaa am boo xam ne dina la wax jógal yeewu jot xam nga dama départ parce que ñun tamit muusuñu nag comme Maguette ni nga koy waxee mais dinañu xalaat ndax Abou Gueye dañoo yàgg ci politique masata dañ doon def élection saa bu ñu defee élection rek gaa yi góorgóorlu góorgóorlu góorgóorlu góorgóorlu ma taxaw leen xaar rek ma ñëw liggéey ak waa Jokkal kaw yi liggéey bu am solo ñëw daal leen doubler ay plus de mille cinq cent voix bu ko defee damay daal di gagné centre yëpp daanan ma gagné HLM daanan ma gagné euh, je crois Mbaye Ndiir daanan ma gagné Ousseynou Diagne daanan ma gagné Maurice Guèye mais jokkul kaw laay ñëwee daal pour fa coefficient bu rëy ba nga xam ne sama déficit bi yàgg dama koy jël ba am un plus daal di gagné maire yi xam nga nag ak moom dem ba mu yàgg état bi nand mu ne ndeke waa ji daal moom Moussa Diallo rek la mën a gagné moo di jokkul kaw ak jokkul njaayeen xam nga lu mu njëkk a def dafa dem jël Moussa Diallo bi nekkoon à peu près ay quinze bureaux de vote mu daal di koy toj wàññi ko ba defee ne xaw ma lu muy defaat mu daal di centre bu bees muy muy Alioune Dia pour waa Njaayeen ñu ci bari nag si sama njiit yi ñu jël leen ñu ñu fudd leen araf am na ku ci dem sax Tamba ku ñuy wax Tamba ngay wote te réewuma am na ñoo xam ne dañuy wax Tamba ay wote ah Massata ku la bett man la 2017 2017 lañ ko def daal di jël benn école boo xam ne man maa ko tabax man maa ut sama partenaire maa ko tabax maa tëj bunte yi man maa ko jox inspection moo tax waa côté bi surtout waa cité ku ci sa doom di jàng ci école boobu de war nga ma sant parce que ñu ngi doon jàngee fii ci Bassirou Fall mu jël école boobu terrain bi ñun ñoo ko moomoon mu bokk suñu patrimoine communal en tant que commune d' am Abou Gueye mi xam na ne terrain boobu daggitu kayit autorisation de construire amu ko ay pour feeñ gese moo tax ñu tabax ko foofu école bi ah eh, kii mbaalo boo demee nga laaj ana autorisation bi du kenn loo ko woon parce que boobu néew lañu doole nekk commune d'arrondissement mu am ñoo xam ne dañ ko bëggoon a say saay ñëw taxaw ma ne entrepreneur bi ñu nekk amu Gueye ñu ne entrepreneur bi est-ce que am nga fit mu ne man yéen laa yaakaar saa yi ñu xëlee jël suñu siis toog muy teg brique di teg brique ba kenn mënatu koo daaneel loolu moy autorisation de construire ñu jël école bobu école ba xamné étage la mais mag buy boté est-ce que mën naa yéeg étage handicapé est-ce que mën naa étage ñu def ko centre lañu wañi wàññi fële ñu yóbbu ko fële ñu indi ko muy 14 classes bet nañ ma nak amna 14 quatorze classes ak ben abri provisoire pourtant moon nañ ko bàyyi fële rek abri provisoire dépense rek ñu bañ ko am mais boobu seen stratégie lool la mais nag dama ko yéex a xam mais ñu ngi sant yàlla boobu maa ngi PDS élection yi ñu ngi ma rawee après ay trente cinq voix comme ça ah ñu toog suñu kër parce que nag yàlla su bëgguloon ñu xalaat du ñu jox bopp mais daf ñu jox bopp am lu ci def ñu toog di xalaat di xalaat di xalaat di xalaat moo tax waa boor bi di ngeen gis ci ay nombre d'investis yi ci nekk damay bañ ngeen dem jëw ma dafa am stratégie boo xam ne moo tax ñu dem donc ñi fi nekk moo tax ñu ne nañ ko renforcer diggante HLM rek saa nga boole ci CAPEC mat ne 10 boo ci boolee CAPEC mat na ci boolee CAPEC 5 muy 15 alors que ci benn liste bi 16 góor moo ci war a am kon nag doole jooju. ñun ñoo ko créer suñu bopp waxtaan ci defar suñu liste ba vraiment bu ñu demee élection am nañ ci yaakaar loolu nag moo tiital gars yi ci ginnaaw gars yi dañu yoxoon suñu liste quoi di xool ñu ñëw fii ne ak ah, fii de mën nañ fee ñafe ñu dem Kapek ñu ne mais kii monsieur maar mii kii daf ñu njoolu de ñu ñëw HLM non ñu dem fële ndënku ñu gis dama fa des

bëgguñu bëgguma ñu perdre sax benn bureau de vote